tey nag pour nag def si suñu ñàkk ñàkku si moom moo ñu indi woon tey ndax ku nekk xam na ne mbas mi nekk fii Covid 19 bi ku nekk gis na li muy def rawatina nag deuxième vague bii deuxième vague bi metti na lool te soxor na lool ndax ku nekk gis nga ñu ñàkk ku nekk ñàkk nga ay nit yoo xam ne nit ñoo xam ne ñu la jegeñ la nit ñoo xam ne ñoo bëggoon la ñàkk nañ leen. muy góor muy jigéen mag ndaw kon nag loolu lu ko fi jëlee muy ñàkku nañ leen ñàkku suñu ñàkkoo pour jëlee ko fi respecter mesure barrière yi ginnaaw bi ñu takkee suñu masque yi masque yi ñu di ko takk respecter tam distanciation bi di soriante te di raxasu tam fi ñu jóg ngay raxasu ñàkku nañ leen ñàkku comme kat ñàkk bi lañ ne moom moo ko fi jëlee ah président fexe na ba indi na fi ay ñàkk yi kon nag ñëw leen ñu dem ñàkk ju góor jigéen. mag ndaw rawatina nag ñi nga xam ne am nañu juróom-benn fukki at jëm ci kaw ñi nga xam ne dañoo am jabet ñi nga xam ne dañoo am tension wala ñi nga xam ne ñi ngi dundee feebar ñëw leen ñëpp ñàkku ji muy góor jigéen mag ak ndaw nañ ko waxante ñëpp ñu ñëw ñàkku si ñàkku daal xam naa ne mooy aar sa bopp aar sa njaboot aar say kilifa aar say mag aar sa économie tam ndax kat defe naa ne tam koom-koomu réew mi tant ñàkk wuñu a ah, am wér-gu-yaram defe naa ne duñu mën a liggéey bala ngay tala dara dangay am sa wér-gu-yaram luuma yi ak ñëpp ñu ngi koy jàmbat xam nañ ne fii luuma yi ñuy tëj metti na lool ndax koo xam ne ci la daan amee dara ah gisatul luuma gisatul leneen sonn na kon nag nañ leen ñàkku ji bu ñëpp ñàkku jee bu soobee yàlla ñu daan feebar bi ku nekk delluwaat ci say activité yàlla jàppale ñu ñun ñëpp loolu daal la ñaan man la Xavier Dione point ak surveillance épidémiologique ci district sanitaire de Khombole. d' abord je vais je vais en premier lieu je vais féliciter l'honorable député de l' acte qu'elle vient de faire c' est peut être un acte vraiment de haute qualité aujourd'hui ça peut nous permettre d'évoluer dans la communication surtout dans la communication les gens vont voir que le député aujourd'hui s'est fait vacciner c'est pas c'est pas quelque chose qui n'est pas qui est rare Aujourd'hui, on l'appelle aujourd'hui à ce qu'elle parte dans la population, qu'elle nous aide à sensibiliser la population pour qu'elle puisse accepter la vaccination. La première chose qu'on peut, qu qu peut, dire aujourd'hui, c'est que la, les, les, doses de vaccins qu'on a reçues en premier lieu, ça concernait juste le personnel sanitaire de première ligne. Et nous sommes en train de vacciner le personnel sanitaire de première ligne. D'ici la semaine prochaine, on va commencer les populations, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 60 avec, vivant avec des comorbidités, à savoir le diabète, la tension artérielle, l'insuffisance rénale et autres, entre autres, euh, là, on est, arrivé, on est à stade-là. D'ici peut-être demain, ou ce soir ou demain, on va recevoir d'autres doses pour ces personnes-là. Donc l'appel que je vais lancer aujourd'hui, c'est l'inscription. D'abord, il faut inciter la, les populations à s'inscrire dans la plateforme pour qu'ils puissent accéder à la vaccination. Au moins, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse éradiquer ce fléau qui est en train de société. c'est-à-dire freiner toutes les activités au niveau du Sénégal et au niveau mondial, et qu'on puisse relancer les activités économiques et sociales, et qu'on puisse aller travailler à nouveau pour participer au développement du Sénégal.